deux préoccupations bi ci njëkk mooy euh, ce peuple a été exigeant ci régime bi fi jógee ba war na li xew nii donc ñiy ñëw war nañu xam forcément li leen di xaar euh, ndax ce peuple bi nga gis euh, dina leen may benn temps de grâce wala c'est un ak kii à la cause de de de ñii benn ñaareel bi mooy Jomaay ak Sonko ni mu demee nii ndax ëllëg Sénégal naru dugg ci loo xam ne xëy na seen jëflante mën na mën na ko indi. waaw jërëjëf Maodo Awa je pense que temps de grâce bi yaakaar naa ne mën na am. Mhm. Euh, résultat yi bu fekkee ni muy ruusee noonu lay wéyee nañ jàpp ne dafa am euh, bëgg-bëgg soppi bu am doole boo xamante ne moom la askan wi wone mhm. kon jàpp naa ne dinañu tey gis nañu Abdoulaye wàdd bi mu soogee falu euh, lu ñu doon wax dañu naan bàyyi leen góor gi mu liggéey ça veut dire que yi souvent bu ñu falee nit dinañ la jox Euh, leng yi dinañ la jox aussi dinañu dinañu taylu même président Macky Sall. Mhm. pratiquement euh, élection yu mu demoon daf koy gagné. Mhm. jox nañ ko euh, vraiment jox nañ ko kàddu jox nañ ko. lépp li nga xamante ne soxla woon na ko pour mais li Latif Coulibaly waxoon ci Ablaye Wade est-ce que tey lañ ko nar a gis un opposant au pouvoir parce que gars yi ce qu'ils disent mooy gars yi nañ doon <laughs> mais mais mais mais mais je pense que euh, waaw euh, non du nekk un opposant au pouvoir pour plusieurs raisons maa ngi si mm-hmm. ñëw benn bi d'abord euh, aspiration changement boobu peuple bi wone day yaakaar ne aussi peuple bi dina jox président bu fekkente ne li ñu gis euh, euh, mi ngi continuer boo nga xamante ne yàlla dogal na ko euh, président Diomaye dina ko jox moyens yi nga xam ne moom lay soxla pour mu gouverner loolu laa loolu laa gis parce que noonu la peuple sénégalais yàgg di doxale su fekkente ne daf la fal dana la jox li muy àndal mhm. ngir nga doxal boo doxalee ba ab diir dina dina xool ndax li nga doxal noonu la wala déet mu jël li nga xamante ne moo ci ay matuwaayam loolu je pense que benn la ci mais euh, dafay wane aussi ne euh, ni ñu ko waxee sànq euh, maître wax na ko professeur Serigne wax na ko mhm. il faut aussi que ñu xam véritablement askan wi li mu bëgg parce que mhm. changement la ñu woote euh, dundu bi métti na jafe-jafe yi jafe-jafe yi bëri na te côté boobu duñ leen baalati yenn erreur yi mhm. loolu aussi il faut ñu sóoraale ko mais euh, coalition Diomaye c'est une équipe équipe bi compétence yëpp ñu ngi si je pense que bu fekkente ne dañu jiital euh, intérêt Sénégal mën nañ ci génn parce que aussi li gën a am solo ci sama gis-gis mooy volonté politique te volonté politique bi ki nga xam ne moom la ñu fal moom moo ko amee euh, Diomaye euh, gis nañ ci moom caractère gis nañ ci moom ay valeur gis nañ ci moom ay principe donc loolu je pense que mooy li ëpp solo léegi nag li ci des mooy nga nangoo dëglu ba noppi di dégg di waxtaan ak ñëpp di diisoog ñëpp boo euh, dogal boo war a jël nga xalaat ko xalaataat ko xalaataat ko bu baax soog ko jël digganteem ak Sonko waaw digganteem ak bon il faut aussi ñu ñu gis ne Ousmane Sonko générosité bi mu wone mhm. c'est extraordinaire faral lu ñu di ko gis ci politique te commencé wul léegi ci élection locale yi candidat la woon Ziguinchor mu def campagne non seulement Ziguinchor mais def campagne sur le plan national pour fal ñeneen donc implication ci campagne am moo tax ñu bëri falu ñu demati élection législative ñu invalider la composante des titulaires suppléants yi dem terewul mu def campagne wër Sénégal yëpp ne fal leen titulaire yi mhm. ñu jàpp ko prison ne ko mënoo nekk candidat mu ne mënuma nekk candidat mais loolu sama ñàkk bañ a nekk candidat warul tax ñu aj élection Sénégal mhm. xam nga mënoon na wax ne nañ ko aj mhm. mu ne sama bañ a nekk kandidaa mënul tax warul tax ñu aj élection yi Sénégal man dinaa jàppale Bassirou Diomaye. surtout que y avait des négociations yoo xam ne bu ci d'accord woon rek amaana. voilà mën nañu xalaat moo tax ma ne y a une générosité mhm. extraordinaire. nit ki aussi da koy nangul euh, li mu doon nangul ko euh, ay jikkoom. yu rafet mais daal lu président Abdoulaye Wade waxoon bon rek attribué xam nga xam dëgg la wala déet. que ne moo ne woon les bandits de grand chemin ne se disputent qu'à l'heure du partage du butin tey jii nii Pastef mën naa jàpp ne egsi nañu au sommet bu fekkee ne yëfi confirmé wu na. est-ce que nag loolu dana bokk ak li xewoon avant avant avant. dara non xam nga wax ji dafa ferenkulaayu dañu ne les bandits de grand chemin. <laughs> mais ñi. Idrissa moo ko attribué de xam ba xam moo ko wax wala déet. waaw mais mais mais mais xam nga ñi ñi jàppewul seen bopp des bandits de grand chemin. mais loolu ça ne les concerne pas. léegi man dama gis ne. de de. <laughs> donc man <laughs> dama gis ne vraiment Ousmane Sonko générosité bu extraordinaire la wane quoi. Mm-hmm. bu ñu waxantee dëgg rek générosité bu doy waar la euh, te loolu jafe na ñu gis ko ci politicien parce que mm-hmm. politicien généralement day am un ego surdimensionné voilà mm-hmm. mais mu nangu effacé wu ne joomaay la te ñëpp ne woon ne moom la mu ni du joomaay la topp joomaay loolu c'est grandeur nañ ko ko nangul léegi nag li nga xamante ne moo am mooy Euh, ne ñu fexe jiital projet bi comme ni ñu ko waxee te loolu foofu la leen sénégalais yi di xaar Euh, on a on a vu un couple Senghor du Dia benn moment mu am jafe-jafe léegi bu fekkente ne amaat nañ un couple Ousmane Sonko Bassirou Diomaye moi je pense que bu ñu jiitalee jugul woon Sénégal non ma ne ma ne ma ne ma ne problème yooyu dépassé ah, ah, ah. amoon na ay problème mm-hmm. mais je veux dire que actuellement bu fekkente ne jiital nañu Sénégal ba pare jiital projet bi jiital ay valeurs jiital ay principes war nañu ci mën a génn parce que situation bi ñu nekk nii situation bu doy waar la. Mhm. te sénégalais yi wote nañ massivement pour le changement. changement boobu nag bu fekkente ni gisuñu ko sénégalais yi kenn moomu leen te mhm. élection yi wone na ko. gis nañ ne euh, du ay milliards mooy tax nit falu parce que milliardaires yi bari nañ fi te faluwuñu. Mhm. Euh, du yàlla mooy fal donc bu la yàlla falee waruloo yaakaar ne yaa moom réew mi wala yaa moom waa réew mi donc da nga war a ànd ak dal ànd ak tey xam ne yàlla mooy jox nguur te moo koy foqati. Mm. noonu lañ ko waxee ci mbind yu sell yi moo koy foqati ci waxtu bi mu ko nammee. donc ki nga xamante ne dañ ko fal moom dafa war a nekk koo xam ne day jëriñ askan wi. bu ko jàppee noonu rek du sonn.